Samba jël ma micro bi fil bi mënul dem day dagg. waaw loolu la mën nga jël micro bi loolu la boo ko mën nga bàyyi ko jël fil bi jël lépp. ce matin ba léegi journaliste yi ñu ngi taxaw fii ñun dañoo yéex a fippu. xëccal ba pare xëccal ba pare. ay abu damal micro amuñu son abu. ok. parce que à 200 le journalisme on peut pas parce qu'on est en train parler à gauche et à tort sans pour autant maîtriser la situation donc du coup on peut être à côté juste observer ce qui se passe. on se calme on se calme. il est temps qu'on se parle. c'est pas réglé c'est pas réglé c'est pas réglé. pourquoi ñun duñu dugg ci plénière bi. publique la ñun ay journalistes lañ on nous traite mal dans ce pays pourquoi on rentre pas couvrir la plénière couvrir ce qui se passe dans ce pays nekkuñu nekkuñu ci commission ad hoc nekkuñu ci lu privé dañu nekk ci plénière ah, dañu nekk ci plénière dañu war a couvrir

gis nga Bouba ñoom bu ñu soxlaa tey jii ni information pour couvrir leen dañuy woo ñu dem ba sa biir kon boog tey affaire Ousmane Sonko tey jii nii bu amee ñun dañoo war a dem ndax dañoo war a jox population bi ay information yéen nag journalistes yi ñun ñi ñëpp nekk journaliste dañoo war a ñaxtu ndaxte diffamation moo ñu tax a ñëw fii nii kon boog nañ leen waxante dëgg c'est trop c'est trop nañ respecter journalistes yi waaw il est temps ñu respecter journalistes yi. ok Rose loo euh, déjà ñu ngi leen euh, ci manko bi ndax euh, booloo mooy doole sànq ni ñu ko waxee boo leen gisee si suba ba léegi amuñu benn accès pour dem fi nga xamante ni mooy assemblée nationale. depuis nag procédure bi tàmbali nii lay demee dañuy sandi à 300 mètres de l' assemblée doo sax mën jàkkaarloo assemblée député yu bëri di